étoile jamono ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar kontaan ci euh, taamu bi ngeen taamu étoile jamono saa su nekk ñu leen di wax ni chaîne bi chaîne d'actualité la tey nag ñu ngi doxantu fii ci tefes euh, daje feeg benn jeune boo xam ne mu ngi tudd Mame Bamba Mame Bamba n'est-ce maa ngi nuyu di la ziar. maa ngi lay fay kilifa gi. Mame Bamba tey euh, lan lan sa fii si ta gi lan moo ko waral. sama toogaay fii du dara lu maanaam géej boo gisee ma ñëw fii nii toog ak samay xarit. jaakaarloo ak moom maa man dama nekk sën nekk nekk ci këru famille maanaam. Mhm. léegi nekk ak samay doomu baay sama yaay nekk si kër gi. Mhm. yaa way mhm. nekk si kër gi man ma dem ñu yóbbu ma daara. dëgg la mère bi. man yàlla da waa jagleel mère bi dafa am ay doom yu jigéen. ma am benn bu góor bu ndaw. yàlla def paa bi décédé. Oh. yàlla nga yàlla xaaree àjjana. paa bi décédé léegi si lañ commencé gis ne doomam ñëw na si kër gi dafa demoon daara. Mm-hmm. dafa war a ta participer maanaam bokk daal maanaam jël njëlu boppam. Mm-hmm. léegi man ma réglé loolu après bi bi paa bi làqoo ñu miraas def lépp. Mm-hmm. ma nekk ak sama yaay di liggéey. dëgg la sën laa nag demaguma fenn sama am-am. weesoogul daal. mais nag bala dañ ne maanaam. sa am-am maanaam sa ndaw woy koy faagoo daal. Mhm. waaw mhm. moo tax liggéey bu nekk nag liggéey naa ko dëgg la xale laa mhm. mais yàlla maa ngi sant yàlla daal. waaw ci benn côté it. Sénégal am na ay seen yu nangoo liggéey de da ngay nangoo liggéey boo nit bu nee laa ayoo mu jóg ñu dem ngeen ànd liggéey boo pare te yow doo ko nemmeeku si benn côté quoi. yow sa intérêt maanaam intérêt rek ngay visé si moom doo ko xool jéem a xool noo koy jàppalee ba mu ngay jéem a lekk xaalisam ci yoo xamante ne xam nañ daal ni mu demee. Mm-hmm. damay bañ a wax mooy loolu muy sori. Mm-hmm. dugal sama bopp. Mm-hmm. mais daal moom wax dëgg moom seen si moom bëgg nañ ko leen jàppale. ndax nangu nangu nañoo. yow moom mii ngay gis ni damay bay. da bay damay bay. baykat nga. baykat laa waaw. am nga say toolu bopp wala dañ am naa sama toolu bopp mais action yi ma leen doon tegal nii léegi nii si léegi nii. action boobu foofu la commencé. te boobu bi may door a bi may doog door boobu aw ma woon jiw. sama yaay moo ma jox tuuti jiw loolu matatoon bi nawet bi génnee ñu am ñaari saaku mhm. léegi dajale ko ma génn dem dóori waat mhm. bi nawet bi jotaaree ma ñëw mhm. si lañ bayee am ay si saaku yooyu noonu yi denc waat ko jiw mais saa bi ni sant yàlla senes bi nangu nañoo liggéey mais wuñ ko amee ku leen jàppale rek lu boobaa yaakaar dina am waaw sëñ Bam nañ xam ne jàppale nañ leen waaw. Mm-hmm. yow da ngay bay bi da nga ciy boole dem géej wala. waaw dama siy boole dem géej. bu noor bi ñëwee nii mm-hmm. damay bàyyi sama kër. Mm-hmm. ñëw fii nii daan sama doole. ñaataan nga man maa ngi ay vent trois ans rek. vingt trois ans am nga soxna. man amaguma soxna. amaguma soxna mais actuellement daal ni ma dégg ngay waxee yow yaay borom kër gi. waaw ci gàttal. maanaam mais bi sama jigéen laa fa nekkal sama rakk bu ndaw bi tafaaree jàng. tey fii nga toll ci Sénégal. jeune vingt trois ans gàddu kër te amoo salaire amoo dara naka nga koy dundee. metti na metti na de mais nag moom duñ ko wan nit ñi maanaam liñ naan ko xeebu sa noos daal kenn daaxul la noos. man hmm. noonu laay dundee man Bamba. Hmm. man boo ma gisee si mbedd mi da naan ma man amoo kii amul lu ko metti maanaam. Hmm. sans faal bi laay dund. gafar foore. waaw. loolu moo tax. ba fi ma toll nii sama am. waaw tey ndax mun nga joxe sa numéro direct nga xamante ne nii tey amaana am na. ku kilifa gi. Mhm. man barki démb dama waaj di tabaski ji laa pour korite ji lu metti laa lay wax nii. Mhm. wala yónnee sama yaay sama xaalis sama téléphone wadd hmm? ak wéef bi si nekkoon orange bi maanaam dama maanaam maanaam man daam def naa juumte mais nag sa lool loolu daal. Hmm. damaa jënd piis bi waa orange mooy muy jaay kii noonu. Mhm. léegi ñoom ñoo ma jaay piis bi ne ma piis bi waa orange ñoo koy jàllale mhm. di ko jaay pour ko amul quarante daal mhm. man ma jënd ko léegi sama xaalis si la nekkoon ba nii ma lay wax loolu moo ma tee gi sa xaalis sa lépp te na waaw bi jàppoon numéro bi numéro numéro numéro numéro bi 78 669 08 65 jàppoon naa ko mais dem naa fii nii si table bi mais liñ ma wax kii wut daal dalu sama xel dama dem ba xam ne mooy loolu man maa ko liggéeyoon mu mën naa amaat lu ko raw. mu dem nii nii nii nii jotoo yóbbante maire bi dara. nii nii nii nii waaw. maire bi nekkul fii Joal. maire bi non non mi ngi fii man maa ngi dëkk ba Koumpentoum. Koumpentoum nga dëkk Koumpentoum waaw. Mhm. kon actuellement ku la bëggoon a jàppale amul benn numéro bu mu bu mu lay woowee. ah kay sama grand frère bi bu ngeen jëlee numéro am. Mhm. après bu ngeen ko wooyee man dinaa leen jox numéro bu ngeen ma kii. Mhm. après. joxe joxel numéro bi direct parce que am na ñu lay seetaan ñoo xam ni jeunes yu mel ni yow dañuy bëgg pour pour collaborer ak yow. waaw joxe 76. 243. 18 23 76. 243. 18 23 képp ku ci woote dina jot Mame Bamba waaw wala Fallou d' accord donc kon euh, mbokk téléspectateurs yi yéen ñi ñuy seetaan numéro baa ngi noonu dinañ ko aj ci kaw affiche yi di dajeeg jeunesse ñu ñuy wax ñoom naka la ñuy dund donc waaw paa bi génn na àddina hmm. miraas ngeen hmm. tey lendemain korité hmm. ñëpp nekk seen kër yi di noos yow ñu fekk la fii nga toog lu waral loolu toogaay bi fii mel ni da nga jaaxle billaay am ngi jaaxare rek mais nag dund sans val bi rek comme li ma wax ni sama gars yi ñoom laa fi am am itam mooy loolu maanaam li ma dal amaana man dama bëri wax di wax rek mais ñoom itam am na lu leen metti quoi waaw mais lépp lañ ko boole doon benn mais ñàkk considération bi nga baal ma su fekkente ni comme ñu mel ni yéen. Mhm. ndax àddina bi léegi gars yi alal rek la ñuy toppee nit. Mhm. boo dëkkee si koñ. Mhm. saa saa ñu ne ñu leen di jiiñ saam faal gi bàyyi faal gi. Euh, saa agression am ndax mos nañ la xoolee yooyu noonu ci koñ wala déet. <laughs> loolu mën da kilifa gi. loolu mën da ñàkk mais sant yàlla. waaw sant yàlla ndax ay mbir mënoon nañoo mel neneen. wala ñu dugg si leneen wala ñi nga xamante ne ndeysaan yàlla da leen jëlee ñu bokk si. Mm-hmm. waaw di ko sant yàlla daal wax fi yàlla waaw. Mm-hmm. kon daal actuellement yow boo amoon yenn financement yi war nga mën a gën a concentré wu ci mbay. wallaahi la si wallaahi la si. Mm-hmm. billaahi nangu naa ko te am naa jëm di. billaahi. mais tey lu damay gis ñu bëri di leen toogloo naan ndaw ñi nañ toog ci réew mi te. jàppaloo wuñ leen fenn ndax néew lu mel nii moo tax nit ñi ni bu ñu gisee leget guy tëmb sax dañuy dem géej. billaahi wallaahi man mosuma xam géej man ba léegi mënu ma fay bu ñu demoon géej yàlla moom mooy mën a dimbale mais ma soobu woon géej ma liggéeyoon ba soobu géej bu mun dimbale yàlla waxatuñ ma. amaana ñi may àndal am nañu si mën ndox. mais man xaw ma ndox. waaw. kon immigration clandestin bi gars yi di mbëkki mhm. yu mel nii moo ko waral li yu mel nii moo ko waral billaa wallaahi garant hmm. billaahi su may wax sax sa xol day fees mhm. billaa wallaahi metti de mhm. maa ngi ñaan maa ngi ñaan interview bi hmm, julliti yàlla yi ñi nga xamee yàlla mënal na leen ñu gestu ndaw yi Sénégal ba teg leen loxo utal leen ay financement jàppale leen bañ mun a toog parce que lu bëri ñu ngi leen di approché ndaw yi naan nangu ñu liggéey mais gis nga kii ma toogal di Bamba day bay day dem géej day xoslu te xam naa ni li mu wax yëpp am na leneen lu des donc euh, ñuy ñaan état wu Sénégal Bassirou Diomaye Faye ak euh, ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi fi ñu gëstu ndaw sénégalais Bamba lan ngay jeexale waaw di leen ñaan rek ñu jàppale ñu. ndax Sénégal on est ensemble ñuy wax ñu ñëpp benn lañ. waaw di ñaanal daal population bi di ñaanal daal kilifa woy kilifa diine yi am jaamu man ñëpp laa yéene jaamu man Bamba yàlla ñëpp am jaam rek yàlla def jaamu si réew mi. amiin bilaa wallaay amiin amiin jërëjëf Bamba.